waaw أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد taaji xaqaiqi anwaarika zatiya wa sirri tajalliyaati qudusiyika man tafajjarat minhu yanaabiu alxikami alilahiya walmaarifu laduniya mbokk julli li nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog ñun dañu seetaan ci télévision bu màgg bi di Nabi TV officiel ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen masawu coono di leen balu aq di leen baal aq di leen masawu coono jamono bu baax di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla defal leen tawfiq ak taysir ak barke yàlla boole ñu musal ci mbas mi le yàlla sàmm ñu sàmm suñu réew yàlla def fi jàmm def fi dal yàlla def ci xolu ñu ñu jiite ci wàllu àdduna yërmande ba ñu yërëm toujours ni ma koy waxee koo yërëm mu yéene la la nga yor yàlla def ci suñu xolu kilifa diine yi ñu tegul li seen baay tegoon ak li seen maayam tegoon te muy diine gu jub gu ànd ak ragal yàlla gu mot sëg gu ànd ak bëgg doomu aadama yi ak leen jàppale lépp lu dul yàlla geneen tam amuñ ci yàq amuñ ci defar su ko defee ñu ngi nuyu suñu baay Aboubacry Kane di ko ñaanal di ko ziar di nuyu xaazi Fata Sarr suñu magum daara di nuyu suñu xarit xaazi Maxtaar ak suñu soxna soxna Zeynab Ba aw buuru këram di nuyu nag Xaazi Mor Diallo mbokk yi tey suñu waxtaan mooy ci ëttu jigéen yi émission bi ñu fiy def ci télévision mag bi Dinavi TV officiel jigéen démb ak tey ci biir société ñu ngi ciy waxtaan tey fa tabaarakallahu euh, wàll mbaraan mi ci dëkk bi waaye laataa booba comme ay imam lañ te ay taalibe cheikh lañ te ay jullit lañ te ay jàngalkat lañ faw ñu ñàmbaas tuuti ci li nga xam ne dafa nekk ci suñu réew mi fan yi di coow nekk loo xam ne bépp jullit buy wax diine réew mi ñor la dëgg yitteel la njub ak nekk citoyen soxal la munoo di wax diine te doo ci wax il fallait nga wax ci dafa am benn journaliste bi ñuy wax Pape Alé Niang dafay faral di wax ne ku artuwul di nga atte te waxu olof la kon artu dafa baax moom la olof naan magum xamoon naa ko moo magum waxoon naa ko yàlla nag noppi na démb ba mu waxee na fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytu leen taal fitna woo xam ne ña taal du yem ci seeni bopp moom la olof kajoor kajoor naan ay du yem ci bopp boroom li nga xam rek mooy taal nga mais fa mu yem xamoo ko te bëri na réew mu takk bëri na nit ñu sànku lu ndaw moo ko taaloon loo xam ne kenn musul yaakaar lii dina àgg fii laajal Côte d'Ivoire laajal Guinée laajal feneen ak feneen kon nañu moytu fitna la ma cay wax rek ci coow li mooy am na kilifa goo xam ne demoon na élection ñëw troisième position ka nekkoon deuxième dem ànd nguur gi kon daf mel ni kon moom moo nekk premier opposant ci Sénégal aspiré jiite réew mi sonnal ñi fi nekk ci wàllu régime bi mayu leen dara ñu dem ba am luñ ko jiiñ man ñetti rek laa ci wax benn mooy baayu askan wi nga xam ne moom la yàlla jiital tee ñuy waxtaan wàllu mbaraan wi mbaraan dafa xew ci suñu société ci xale yu jigéen ñi nga gis xale bu jigéen boo xam ne day toll ci njàng au lieu que mu toppatoo njàngam nan la mën a réussir lan la war a mën a def pour réussir nan la mën a def pour am avenir ëllëg bu brillant ba lam doon seen ci mbaraan wi ak ak njàng jox ko ko puisque boo amee diplôme bu kawe diplôme day teral boroom bu ma kenn wax am na ñu am diplôme di jaay mburu waaw puisque kooku loolu la yàlla bind ci destin mais pour nga nekk ministre wala nga nekk directeur société wala nga nekk euh, magistra wala avocat wala nga nekk doyen des juges wala nga nekk euh, euh, yenn kilifteef yi mais faaw sa bopp bi am bagage il faut nga am diplôme kon diplôme dafay teral boroom bu kenn di andi exception mais nañ teg règle bi règle bi mooy jàng leen yeneen tuuti sax nee na ilmu utlubul ilma wala bi Chine dem leen jàngi xam-xam ba même bu dee ngeen dem ba Chine te xam ne ne Chine kenn jàngi fa diine mais lañ fay jàngee mooy technique ak technologie te gis nañ sin tey fi ñu toll ci technologie moo tax yeneen tuuti sax lu mu wax dëgg la kàddoom dana guddee àll du fa fanaan mukk kon kii nga xam ne dafa toll ci njàng war a jàng au lieu que mu jàng mu xam ne njàng mi dina ko tëral ëllëg waaye déedéet day mbaraanantu di farantu am téeméeri farak juróom-ñaar kiyee koy andil iPhone kiyee koy jëndal cheveux naturel kiyee koy may li mu sol kiyee koy jox lu mu demee tuur gaa yi nag ku teral tëral la moo tax wallahi Sonko da dafa nekk kilifa mbiram siiw <laughs> waaye la akbar bu yàlla wuññi woon bu yàlla wuññi woon def écran ñuy xool bari na kilifa gi fi toog di yuuxu ku sàcc nen fekk mu ngi moom mu ngi sàcc nag yàlla suturaal ko billahi wallahi tallahi réew mi bari na ku taxaw ci télé bi di yuuxu diw sàccee wub ñu ne ko yuuxu mu ne Samba Ndiaye ñu ne ko lu Samba Ndiaye sàcc mu nen nen fekk moom mu ngi sàcc nag yàlla nga ko suturaal mu toog ñoo ma gën a xam li may wax tey ñu suturaalante sutura baaxul de encouragé wuñu kenn kuy def lu ñaaw mais nañu suturaalante dëgg la képp ku def ñaawteef dañu laa la a génnee attale ci loolu waaye li ñuy bañ mooy deux fois deux mesures bëri na koo xam ne mu ngi yuuxu ku sàcc xar fekk mu ngi sàcc téeméeri gëléem toog ce boof boof ca seen benn waay bu sàcc mboote mu ko yuuxu sàccee kon moom lan la nekk xanaa mooy maamu sàcc kon xam nga li fi nekk agresseur bu mag ak bu ndaw bu mag baa mag baa ngi yuuxu bu ndaw bi waaye fekk moom bu nit ñaa ngi topp kooku bug koo dóor waaye moom bu nit ñi xamoon la mu agressé ñu bàyyi kee topp ko laa <laughs> ko moo tax mbaraan baaxut dafa am loo xam ne nag buñ ko roccee ci doomu aadama mooy ngor ak nite ak mbaax ak jikko ju rafet ak jomm jomm kooku daanaka animal la nit li tax mu jëkku adversaire am nekk ci pouvoir jekku adversaire am jéggal ko te yàlla tax loolu njomb njomb bi nekk ci doomu aadama jikko ju rafet la mais nit bu jikko bu rafet génne ci moom animal la animal nag ku doon bés bu la yàlla abalee doole di nga tukkal aduna te am na doomu aadama yu dox ci kaw suuf animal moo leen gën a baax xol moo leen ëpp jikko xam nga yàlla ne na man maa doomu aadama waaye su ma dara nax asfala saafilin maa ko wàccee ba mu gën a suufee yàlla nee na ci alquran in hum kal anaami am na doomu aadama yoo xam ne ñu ngi mel ni yàlla tontuwaat ne bal hum adall ñoom sax ñoo gën a bon animaux ñoo gën a yées moo tax am na loo xam ne kukku sañ a def mokk moromu doomu aadamam nit ñee la jàppee nit sa bopp nekk ci kaw sa tàng nekk suuf mais doo nit animal sax la gën waaye nag yàllaa ngi fi moo tax lu waay di def na nga gëm ne yaa ngi manœuvrer mais yàlla mu ngi manœuvrer te li ngay manœuvrer mën na bañ a am li yàlla manœuvrer mooy am moo tax jigéen dañ ko war a yar mu doylu puisque jigéen ay àdduna puisque jigéen ay ndey puisque jigéen ay ëmb tey émission télévisée yi nekk ci télévision yi bépp xale bu leen wul di seetaan quatre-vingt-dix pour cent jigéen ña fa toog danañ yàq société bi puisque jigéen joo xam ne d'ailleurs mu ngi nekk jullit nee na jullit la mu ngi bàyyi boppam ci biti mu ngi tooj ay weenam te kat yee yaay mu ngi naan mu ngi def émission boo xam ne mu ngi jéem defar moral te moom la mu sol baaxut ci kaw ba ci suuf duñu nangu sax invité imaam lu bari da leen di fatt ci seen émission euh, invité ay zigolo moo leen di gënal naan ña ngay xelal jigéen ña télévision Sénégal yi fi nekk yëpp surtout télévision privée yu bëri man damay toog di seen émission yi des fois ma dem ci mais bu dee nitu diine nga buñ la invité benn duñ la bëgg a invité waat parce que da nga leen di fat il préfère invité ay wuyu ñoom seen bopp duñ ay duñ waruñoo nekk ay donneur de leçon puisque ñoom seen colin baaxut ba pare ñi ci gën a bëri jànguñu diine te ay julli lañ ay doomu julli lañ ñooñu kan lañ mën a defar fan lañ toj xale bu jigéen bu leen déglu di nga bon ni ñoom puisque réew mi boo seen mbaraan bi bëri nga opération canapé yi bëri ab jigéen bu ñëw ci société di fa liggéey ba muy ñëw diplôme moo ko fa dugal donte ne dañ ko parasité am na ku fa xam mais dafa am diplôme xam na na ñu manipuler ordinateur xam na ni ñu jàng na mën na bind parce que ku mel ni man boo ma tegoon foofu mënu ma fa liggéey puisque jàngoo tubaab damay foraatu rek puisque jànguma anglais puisque xaw ma ni ñu ma ñoom ki jàng loolu yëpp nag toog sa xam-xam teg la fa waa ji yow ndaw si nga xëy solu tooj say ween duufal sa kanam mel mel melukaan loo xam ne da ngay mel nu ab ku yor ab xaru la laadum wala bali bali sang ko ba mu set teg ko ci penc mi ne xool leen sama xar mu duuf mi yow noonu ngay def góor ñaata góor ñu feebar ñoo dugg ci banque bi fekk la sa bureau di la xool yor seen alal ñi ay góor jigéen lañ ñi ay franc-maçon lañ ñi ay footballeur lañ ñi ay mbër lañ ñi ay musicien lañ parce que ñii ñoo fi am xaalis ci àdduna bi góor jigéen ñi franc yi footballeur yi mbëru làmb yi yi ak taasukat yi ak mbandkat yi ak lenn ci géwél yi nga xam ne amuñu njomb njomb ko am xaalis ñu tagg la wax la waxal la nekk ci yow ne nekkul ci yow mais ñi ñoo fi am xaalis ci réew ñooñu nag buñ doxee ba fekk la nga bàyyi say ween ci biti bàyyi say ci biti di jaayu te am nañ seen benn koo xam ne moom la ndeyam liggéey moom lañ takk def ko ci kër ga fa yéene koo teral xam nga yow nu ñuy def ak yow def la ni ñuy defak ak xar bu soxla ngooñ chaque jour ma wax ko bu ñu soxla ngooñ wala ki yor onze am di napp ci jën bi ab jën ju ndaw jooju mu dugal ba jën bu mag bi jàpp na jën la bu koy lekk ñu koy lekk jour boobu dañ koy dañ koy pépesu parce que dañ koy jàpp su ko defee jigéen su doyloo am njomb njomb am jikko bu rafet nite su toogee ci bureau bi yooyu du ko këf fa tabaarakallahu yooyu dafa am solo comme temps bi bëriwul bëggu ñoo xaabaabal ñu daaneele ci wàllu mbaraan wi mu bari ci dëkk bi lool te ñaaw te am ci couche yëpp am ci yaboy tas gi yaboy tas gi mooy génération deux mille ba ba jëm ba jëm d'aujourd'hui mooy ñi nga xam ne xale jigéen ñi nga xam ne ñu ngi judd deux mille jëm heure bi ñi si gën a bëri ay doomu procureur lañ mais euh, engrais bi ñu lekk koo gis ma ngi tol ni nijaayam wala ma ngi tol ni maamam fekk xale bu ndaw la ñooñu ñii ñu ngi toll ci njàng ñii ñu ngi toll ci liggéey ñii ñu ngi nekk maanaam di jaayantu di dimbale seen kii seen parents yi ñii ñu ngi toll ci nekk kër gi di jàng liggéeyu kër ñu ci gën a bëri farantu moom lañ def seeni bopp te ñenn ñi nag lenn ci kilifa yi ñoo leen di incarné di leen def loo ay musiba am na ci réew mi ñenn ñi <clears throat> dañu am koo ci gis mu nga ñett ba ñeent xarit copain kii comme na ma ko waxoon sama début commencement wax moom nga yaakaar mu di la jëndal di la dimbali ci ci sa wàllu tour famille yu mel noonu moo lay financé la jox kii moo lay andil ay portable yu kenn xamul kii moom nga bëgg ñam ñaar nag ñaare kañ ciy bëgg moo ci gën a sa yées du am benn maanaam du du du du jar sax du wóor sax nga dénk ko xar ndax boo ko dénkee xar sax mu yooy ndax ripaas mu ko jënd la dul am tubéy ba muy sol daanaka ñaari saaku ñaam bi mën na cee xej ay yeelam a ngi weex mi leen moom ci diw sax amu ko buy langal tubéy wàccee silibam silib boo xam ne daanaka boo ko defoon ci ndox ndox moomu daanaka poson la mën a rey ay jinax kooku daa jara feeñal moom ñooñu ku mel noon la ñu bëgg bëgguñu ku baax bëgguñu ku baax bëgguñu kuy waaj a baax bëgguñu sax ku baax ba noppi ku bon rek lañu bëgg beneen bi ci mooy jéegi sëy ba pare tas amuñu beneen borom kër en attendant nag ñu doog ci kër ga nag ñoom i tamit léeg-léeg ñu am doom léeg-léeg ñu bañ am doom mais ñuy xool koo xam ne ñoom tamit ñu ngi ci mbaraan bi bi gën a bon nag te moom it mu ngi ci dëkk bi mooy ñi nga xam ne ñu ngi en plein sëy ngi am seen borom kër mais seen borom kër mu ngi bitim réew xëy na lu mu leen di yónnee doyul wala xëy na am na leen di manqué ñu am seen benn sàmm bu ñu fréquenté yii xeetu yëpp dafa nekk ci dëkk bi te benn rafetu ci benn jekku ci benn baaxu ci nit nag balaa kenn naan la lii ñaaw na rafet na yow sa bopp yow yaa war a xool sa conscience gis nga réew mi nit ñi bu ñu defareen soon lii rek police noppalu gendarmerie noppalu juge d'instruction noppalu doyen des noppalu magistrat noppalu avocat sax dootuñu am liggéey bu nit ñi defaroon seen bopp yi puisque boo lekkee sa sandwich ba pare nga yëg ne réew mi yàgg sa réew la ñëpp loolu nekk seen bopp nga jël këyit bi la lëmas ko di xool téye ko ba xam foo ko ka kañuy fay mu ne ah man kat damaa war a xëy huit heures wàcc tàkkusaan su ma toogee ba dix heures deux heures temps yooyu bu ëllëg yàlla daf ma koy laaj moom it mu xëy dix heures ka nekk ci bureau état bi dem bay wàcc mu ne ah clim bi kat dama koy fay ndax suma ko fayut wala ma bàyyi ko fi ndax bureau bi nangam nangam bu ëllëgee poste état bi lay yokk ka nekk ci mbedd mi di dawal saret yor xiiram comme ni gars yi agressé léegi ci ci ci ci bi bu ñu see nga yor sa ñu caw la xiir bi borom saret yi leen yi ñoom dañ koy def nañ ma baal mais loolu la nekk ñu këf sa portable puisque ki ma ko wax ci homme de tenue la xam na leen bu baax kenn ku ci nekk rek bu ñu la defaralee sa bopp ba boo defaree sa bopp ba mu baax dugg ruux kanaman rek la sa bopp dana am loo jomba def loo xam ne lii suñ ko posé ci réew mi réew mi jëm kanam kii dawal oto guddi ba ñëw ci feu rouge gisul alkaati rouge bi tàkk au que mu taxaw mu dugal deuxième nar dem alkaati ne prd mu taxaw ne ko xanaa gisoo rouge bi mu ne ko gis naa feu rouge bi kay yow laa gisuloon kon kooku xam nga bopp bi baaxut kon nii tubaab bi taxawee ci feu rouge bi ñemewul burle parce que xam na ne bu burlee radar bi mën na ko détecté wala wala wala wala ñu defar teg ay garde fou ba réew mi defaru loolu aussi suñu réew mi nañ ko def waaye musiba ki ci nekk mooy bu fekkee ne ka a teg loolu koo koy jalgati yoon bu fekkee dañu ne na ñëpp di wax dëgg que réew dëgg ko yor yéen tamit ne jullit du fen kala yilif nga xam ne yow ci mooy sa seetu moom ngay xool nga gis ko mu ne ah man kat duma def nangam nga gis mu def ko man kat nangam dinaa ko def nga gis mu bañ ko def mais su boobaa yow tamit da ngay am kii su ko defee mbokk yi lu duuf ci nag bi xejul ci cin wi waxtaan waa ngoog ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ci nekk na nga xool waxtaan wi xool ci sa bopp waaye li may daanelee ci waxtaan wi mooy nañu am yërmande bépp mbubb boo bëgg a jël solol ko sa waay nga xam ne mbubb mi tilim na ku ko xool ne accam yow bëggoo ko sol bu ko solal sa waay te képp koo xam ne fexe nga ba ñu tëj doomu aadama ci kaso wala ñu yàq deram wala ñu yàq tilimal ay mbiram te yow mi ko def da nga koo def parce am na loo yaakaar si xel wala par parloo xamal ne mbugal bu métti ak toroxtaange bu métti mu lay xaar sa mujjantal dund ak sa biir bàmmeel kon na nañu yërëmante ñu bëggante nañu fonkante nañ xam ne adduna dafa jeex te dara jarul nga yàq deru doomu jàmbur wala nga wax loo ko lu ñaaw wala ñu fay alal nga bind ci moom lu ñaaw te xam nga ne li ngay bind nekkul ci moom loolu mooy kàddu yi may tàggoo ci waxtaan wi ñaan jigéen ñi nag ñu muytu mbaraan bàyyi mbaraan mbaraan moom la ñu woowee mbaxal mbaxal bu fanaanee nëpp nañ ko moytu mbaxal daal moom fa mu beesee nañ ci xéwal bu paree jeex na waaye fanaan fanaanaat boo ko lekkee biir bu métti nga jël bëgg dajale fukki góor boo amul jëkkër baaxul boo amee jëkkër mu gën a ñaaw kon nañu doylu ànd ak nite ànd ak mbaax ànd ak dal ànd ak ragal yàlla te ñaan yàlla yàlla def ci réew mi jàmm ñu ngi sant di gërëm suñu magum daara xaasi fata di nuyu xaasi maxtaar di ñaanal moor euh, Diallo mi nga xam ne moo ne ci commencé woon di ñaan yàlla yàlla na yàlla bool defal jàmm aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'il muslimin haza wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu